waaw initiative bi moom dañ ci kontaan quoi parce que vraiment lii la ñuy xaar aussi ci euh, jeunes yu nekk euh, partout ci euh, département Ziguinchor région Ziguinchor donc vraiment fépp fi nga xam ne war nañ fa mën nañ fa def garab donc ñu def ko fa donc fii aussi mu nekk yoon bu bees bi nga xam ne ñoo ngi koy defar baax na aussi ñu def fi ay garab mu gën a rafet donc nit ñi aussi gën a gis ay garab yi nga xam ne mën nañ ci am ker mën nañ ci gis aussi taar voilà vraiment jeunes yi duñ amee initiative boobu def ko euh, woo ñu ñun ñu taxaw ànd ak ñoom vraiment ñun mënuñ lu sant leen gërëm leen euh, vraiment kontaan nañ ci action bi. Euh, garab yi ngeen indi tey mu doon ay garab yi nga xam ne yu am solo mu nga dellu si si voilà espèce bu ñuy def fii actuellement mooy Melina arborea donc ñu koy woowee communément Melina garab bi nga xam ne garab bu bu gaaw a màgg la te aussi dafa rafet. donc soo ko defee ci ak routier du am ay doom yu nga xam ne aussi euh, nit ñi dañ koy lekk donc day tax euh, su nekkee ci wetu yoon kenn du am pour ñëw sànni wala pour ñëw euh, wut ay doom pour li nga xam ne soo ko defee aussi mën na gaañ ay xale wala leneen donc duñ ko yéeg duñ ko kii garab yooyu daal vraiment dañ ko def pour yoon wala pour yeneen usage vraiment suñ ko defee ci ak routier yi nii day baax te dina fi yàgg. voilà actuellement ñoo ngi ci campagne nationale de reboisement 2020 donc euh, lu ñu mën a ñaan nit ñi mooy vraiment balaa taw yi di jeex ñëpp góorlu fépp fi nga xam ne nit mën na fa def garab na ko fa def garab amul garab bu bon garab yëpp a baax euh, su la joxul ker jox la doom wala mu jox la oxygène bi ngay noyyi donc euh, wala mu jox la aussi taar taar bi aussi ci la donc esthétique donc euh, ñoo ngi ñaan nit ñi fépp nga xam ne daal mën nañ fa jëmbat garab mu rafet wala mu am njëriñ beneen njëriñ nañ ko fa def donc message boobu la ñuy lancé à toute la population de la région de Ziguinchor à tout le département du de à toute la commune et aux différents aux différents quartiers yi nga xam ne ñoo ngi biir Ziguinchor